àllarba bu jot ñu dikk ak yéen ci émission boo xam ne li ko tax a jóg mooy waxtaane tolluwaayu réew mi euh, ci tolluwaayu réew mi nag ko wax di nga wax lu bari ci wàllu réew mi dinga nga wax wàllu politique am di nga wax wàllu koomam di nga wax wàllu tàggat yaramam euh, di nga wax wàll yépp loolu mooy li yëkkati émission bi di faram fàccee euh, te télévision Futur Média di ci ànd ak yéen àllarba bu jot en direct la ci waxtu bi lay doon ñu am mbégte nag tey di ci dalal honorable député maire Barthélémy Diaz moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission faram fàcce ak télévision Futur Média monsieur le maire maa ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay fay di la gërëm di ci invitation bi di nuyu tamit euh, mbokki téléspectateur u TFM yi ñuy seetaan ak tamit mbokki internautes tamit ñu ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi. jërëjëf Barthélémy euh, ñu génn tey ci benn procès boo xam ni da ci defoon appel euh, lu taxoon nga nga def appel bi ci procès bi ñu fàttali ni mooy faatu ki nga xam ni mooy Ndiaga Diouf foofu ci mairie bu moo Sacré-Cœur lu taxoon gannaaw condamnation bi nga ci amoon. nga dem ci appel ba appel bi tey ñu egsi woon ci ba confirmation am ci d'abord bala ñuy ñëw ci euh, décision bu mujj bi lu sababoon nga jàpp ni da nga waroon def appel maanaam atte bi ñu la atte da nga ko war a dabu lu tax. waaw d'abord xanaa ma am lu may leeral d'abord euh, dem si yàlla euh, xale boobu di di Ndiaga Diouf. Mhm. ñàkkul bakkanam ci buntu mairie bi. boobu je mhm. pense que d'abord leer na. bu ci tegu nag lu tax ma defoon appel parce que dama jàppoon ni que ci première instance lu euh, ma doon xaar ci yoon euh, wax dëgg yàlla gisuma ci suñu bopp moo tax ma damay def appel lu tax ma damay def appel parce que dañ ma daan ne ma bu ci njëkk danga yoroon fetel gànnaay te yoro woon euh, autorisation administrative mooy permis de port d'arme mhm. te loolu dama ko yàgg a contesté parce que dama amoon permis de port d'arme en bonne et due forme parce que fetel boobu dama ko jot noon ci benn armurerie de la place te Sénégal mënoo dem ci armurerie jënd foofu fetel te amoo permis de port d'arme te lu koy firndeel sax le 21 le 22 le 20 le 22 août 2011 article de presse yëpp ngi cour suprême jox ma dëgg ci kaw Ousmane gom moo doon jaay doole pour retirer suma permis de de port d'arme te euh, mi ngi nii je pense que <laughs> détention de pistolet la cour suprême rayam Barthélémy Diaz donc ça veut dire que luñ ma njëkk a daan ne ma damaa yoroon gànnaay. te yoru moon permis de port d'arme kooku dama ko contesté. et je crois que. cour suprême mënul statuer ci lu amut beneen bi dañ ma ne dañ may topp pour coup mortel et blessure volontaire euh, ayant entraîné la mort du du nervi Ndiaga Diouf euh, lu ma wax du dañ nee naa dama défendre et je me sentais en légitime défense ñetteel bi ñu ne dañ may topp pour association de malfaiteurs ak participation à un rassemblement illicite suivi d'actions diverses ak ay menaces de mort naka laa mënee participer ci benn rassemblement illicite te ñoo fekk ma ci suma mairie naka lañ ma mënee topp pour association de malfaiteurs te man dañ ma tooñ fekk ma ci benn institution de l'État moo tax ma ne euh, jamono yooyu ma il faut ma dem ci yoon pour yoon mën a satel suma der mhm. ma def appel te première instance dañ ma daanoon ne ma naa fay euh, njabootu Ndiaga Diouf vingt cinq millions mhm. tey appel bi dinaa ci sant yàlla parce que déjà vingt cinq millions yooyu yoon nee na aw ma pour fay ko njabootu Ndiaga Diouf donc déjà pour man c'est déjà. cent cinquante millions yi la wala vingt cinq millions yi. non ci première instance vingt cinq millions la ñu waxoon euh, la fay njabootu Ndiaga Diouf ba ñuy demee appel nag euh, njabootu euh, Ndiaga Diouf ñoom apparemment dañu jógee vingt cinq millions dem ci xaw ma cent millions wala cent cinquante millions. ok se Sénégal rek dañu mës gis. mais donc vingt cinq millions yi doo ko fay. donc yoon nee na soxlu ma ko fay. ok yoon loolu déjà yoon daf ko daf ko dindi ci seen verdict mhm. bon maintenant yoon nee na day continue day day day euh, day maintenir euh, décision de justice sous première instance. Mhm. mais man dama bëgg a xam naka lañ ma mënee daan ne ma dañ may daan parce que dama yoroon fetel te fetel boobu amul këyit te cour suprême le 22 août 2011. Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur jaay ma doole retiré ma suma permis de port d'armes mooy yóbbu ko ci yoon pour abus de pouvoir cour suprême ne Barthélémy Diaz na ngeen ko delloo permis de port d'arme donc naka lañu ma mënee daan di ma topp ci détention d'arme à feu sans autorisation administrative euh, mais je pense que lu ngeen xam ne nii man ma ko comprendre te amul benn Sénégalais bu ko mën a comprendre mooy fan la ñu mën fan fan la ñu mës gis dëkk ñu ne diw dafa rey doomu aadama ñu koy daan juróom benn weeru kaso parce que loolu amul. bakkan bakkan dafa foofu est-ce que est-ce que par exemple li ñu dégg mooy euh, coup mortel la ñu wax. Hmm. te dañu dañu jàpp ni par exemple da nga ko rey wala lan lañ jàpp lan moo indi li nga xam ni moom nga moom nga wax nii léegi. xam nga Pape ngañ xam nga euh, dama commencé bëgg a miin nag justice te du ma wante lu ma mën a wax mooy pénal su saan daanaka suñ ne àtte ci pénal te juriste yëpp yi yëpp ñu ngi may dégg suñu lay àtte ci penal dañuy ne yow Barthélémy Diaz. yow yaa rey diw ñoom comme ñoo la accusé ñoom ñoo nara indi preuve yi yëpp mais ba tey ba tey kenn mënu la wax naka laa ko reyee fan laa ko reyee ak ban gànnaay laa ko reyee kenn munu ko wax c'est-à-dire ñoom dañu toog rek ci seen xalaat bu gàtt ñu ne ah dañu foog ne ni Barthélémy Dias moo ko def nañ ko daan te man loolu dinaa continuer di ko xeex parce que je reviens à ce que j'ai déjà dit. mais buñ ci amee ay doute nag. moom mënuñu am doute pénal amul doute pénal amul doute pénal da ngay indi la preuve de la de la de la de la charge. danga ma chargé ne ma ne ma man maa def lu ñuy woowee coup mortel et blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner te may biralaat wax ci bañ may njëkk a ñu ne ma da ngay joxe sa gànnaay ma ne leen déet Ousmane Ngom moo fi nekkoon jamono yooyu ministre de l' intérieur ma leen na ngeen njëkk wax ban calibre moo rey ndaw boobu ma sol lañ jox suma gànnaay d' une façon ñu noonu man suma gànnaay su ngeen bëggee xam fan laa ko jëndee am ngeen pouvoir pour xam ko parce que armurerie yu fi nekk yëpp. Sénégal gouvernement Sénégal mu la jox autorisation ak këyit pour ñu mën a jaay ay ay ay ay ay beneen bi yéen à travers la DST mooy la direction de la surveillance du territoire yéen ñaa leen ma jox permis de port d'arme en bonne et due forme kon noor ngeen xam ban calibre laa yor te calibre bu ma yoroon ak calibre bu génnee euh, ci ci euh, ci le corps du du nervi bokkul D'accord. Je voulais, mais, mais, je voulais seulement, je rajouter. Non, permettez-moi s'il vous plaît. Je voulais seulement rajouter pour dire encore une chose. Nous sommes en pénal. Pénal. état moo ma topp na état génne la preuve que man maa def ñaawteef bi. mais Barthélémy ñu ko génne sa déclaration amul foo waxee ni j'ai tiré et j'ai tué. non j'ai dit j'ai tiré et je me suis défendu. j'ai jamais dit j'ai tué. su la neexee vaar vaar lépp ngi fi mën nga wax j'ai dit bienvenue au mais j'ai jamais dit j'ai tué. doo fi génn benn non su ngeen bëggee xam lan moo ci xaw. dem leen par par exemple dem leen dem leen dem leen. non Pape Ngagne. non non pas dans l'émotion Pape. non nekkuma dans l'émotion xam nga lu bëgg moo tax ma mhm. si on reste sur les faits. Mhm. xam nga doo juriste man ma juriste. Mhm. wante man lu ma xam ci tribunal. je pense que xamoo ko ti tribunal parce que tu n'as jamais été exposé autant que moi ci tribunal. dama en pénal su la neexee nga indi fi n'importe quel spécialiste. lii du d'accord lii pénal la c'est pas c'est pas un un tribunal bu amee ay aveu nag. ay lan ay aveu. mais bien sûr que je me suis défendu et j'ai tiré loolu man mosuma ko euh, weddi mais Pape euh, Pape da ngeen xalaat ne ni que la vie de cette nervie là elle est plus valable. loolu kenn waxu ko ou plus crédible que la mienne. kenn waxu ko tey su ma ñàkkoon su ma waaw su doom yi ak su ma ak ak su ma ay wajur ñoom ñooy ñàkk. comme ni comme ni comme ni wajuru Ndiaga Diouf ñàkkee. Euh, nervie du métier maire mère fonction la nervie du métier. te mars 2021 ci affaire euh, suma doomu ndey Ousmane Sonko ñaata nit ñoo ñàkk seen bakkan da nga fi mës gis enquête gisu leen fii ci télévision yi ak ci réseaux sociaux yi ay nervi yi du ñu benn policier du ñu benn alkaati du ñu benn gendarme di dox ci mbedd yi di yor ay pistolet di fetal ay nit fan la mujje fen lu tax man may nangu tey may dugg en politique pour apporter ma contribution ay nit taxaw fële ñu ne waa mais Barthélémy Dias euh, amatul droit wax te puis dañuy waxante dëgg mais ñooñu kenn musu leen yónni amul kenn ku leen yónni oto yi leen indi woon ba ci buntu mairie bi kenn moomul oto yi kenn fayu leen xaalis procès bu nga xam ne ni ban dañ may téye dañ may téye jàpp ma ak lu ëpp vingt et une personnes. Ah, mais mais Barth ma ñëw rek s'il vous plaît rek Pape ma daaneel Pape. ma daaneel rek xam nga Pape lu may wax ni c'est une extrême gravité. parce que fii jéemuñu juger pour rendre la justice au nom du peuple on cherche à liquider un adversaire politique. loolu mooy wax ci parce que première personne bu ma supporter bu ma soutenir lii bu muy am mooy l'actuel président du Sénégal Macky Sall. la. Macky Sall moo ma génne ci kaso bi. Mhm. jàpp ni dañ ma tooñ. dugal ma ci liste ma nekk député. Mhm. Macky ba may loolu injustice la ba may yëkkati. ñu jàpp ñu bari jàppoon ni loolu injustice la ci par ci lan. non par exemple ku nekk ci kaso bi nga def ko ci ay liste. Mhm. mais ñu bari rafetlu ñu woon loolu ah mu def ko nga àndoon na ne yow rafetlu loolu. non attends naka la nit di nekk ci kaso bi nga koy def ci ay liste. nga koy def ci liste. man lan moo ma yóbbu ci kaso. après laa lay wax ni Papa ngañ dama lay poser une question. kan mooy patron fii fii TFM su ma jumlee du Bouba Ndour wala ci la bokk du amut bu muy am fii événement yi ñun ñëpp dañu ñaawlu ñaawteef bu ñu gisoon buntu TFM ay ndaw ñëw fii ne dañuy dal ci kaw TFM Bouba Ndour lu mu wax ñëpp ko dégg Sénégal nee lii bés bu amaatee taxawaay bii ngeen di fi gis parce que loolu mooy full ak fayda gisoo benn dëkk ci àdduna. fu nit di song présidence. Ah, primature ma ñëw rek ah, s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît rek s'il vous plaît. mais fulla ak fayda bi da koy assumer aussi Barthélémy s'il vous plaît mais moi j'ai des pouvoirs de police. mais da koy assumer c'est-à-dire fulla ak fayda bi boo ko jaayee ba pare da nga koy assumer. dama assumer lépp xam nga assumer mënul passer j'ai tué mais j'ai pas tué loolu mooy loolu. Pape ku mortel la ñu wax bu ma daal lañ laa ci xam. ray ray Chifaay non mais Pape. ray bul ma wax loo lu ma waxut peut-être dégguma wolof ni yow. parce que émission bi su nekkoon ci tubaab ma am neneen nu muy demee mais ci lu ma lu ma mën a wax ci ci wolof ci lu ndaw on n'attaque pas une mairie on n'attaque pas la présidence de la République on n'attaque pas le siège du gouvernement on n'attaque pas l'Assemblée nationale on n'attaque pas une un, un commissariat de police ou une caserne de gendarmerie. ku ci sa bakkan des yaa ko def. Papa Ngagne. waaw nervi du métier ab bandi du métier loolu may wax ci wax leen wax ci te bàyyi waxu naa fekki ay lu tax Barth def nii wala Barth def ne Barth su defuloon loolu du fi toog loolu may wax ci te nag da ko nit ñi wax. Barth bu loon lan. s'il s'était pas défendu je me suis défendu si c'est à refaire je refais la même chose te naa la wax dara tey su ma àndoon tey ak Macky ci benn bokk baakaaram bi procès bi vidé nañ ko yàgg na maa lank bañ ànduma ak Macky Sall démb ànduma ak Macky tey te du ma ànd ak Macky Sall ëllëg c'est mon choix. fu mu yem nag neex yàlla rek a fi nekk lu loolu yàlla rek nen la wax leen wax ji dañ ma fekk su ma bërëb fu may liggéey muy institution de l'État ñu song ma à l'époque lan moo nekkoon wax ji troisième mandat mhm. douze ans plus tard troisième mandat mhm. yàlla rek mën na. d'accord d'accord 12 ans du non non du loolu nga ci jàng mais man leneen laa ci gis. non Barthélémy man dama lay poser une question. 12 ans après yow comme yow journaliste nga. non 12 ans après lu tax doo jéem a gestu nga wax ma ban dossier nga fi gis Sénégal pendant 11 ans ñuy dem di dikk aller retour tribunal pendant 11 ans lu tax kenn du ko àtte. 12 ans après. waaw wallu boobu nga àndal waa PDS yooyu nga àndal ci coalition. 12 ans après waaw. douze ans après laa la ñoom ci coalition politique ak ñoom ci coalition électorale. avec un seul objectif. la wax lan mooy. ngeen noonu wala àndu leen mën naa la wax lan mooy. objectif bi ànd fois de plus. c' est une affaire de gentleman. ok yaa may dégg. Mhm. man nekk bokkuma PDS. bokkuma wàllu. ñun ba ñuy nee dañuy lëkkaloo pour def benn say dem élection benn objectif lañ ci amoon benn kese. c'était de démontrer que Macky Sall est minoritaire dans ce pays on l'a réussi moo tax man ba ñu taxawee ñu ne ma dañu dem seeti président Abdoulaye Wade man laaj leen pour lan ñu ne ma ko pour que président Abdoulaye Wade mu retirer sa candidature ma leen du ma ko mës a def lu président Abdoulaye Wade liggéey Sénégal lu PDS incarné Sénégal la le vécu et la trajectoire du PDS je ne peux pas me permettre man di wax waa PDS bu leen am candidat man lan moo ma jëlee lan moo ma jëlee PS kon nag su ma xeexee ba ñu dàq ma PS ma wax que parti socialiste dafa na ko am candidat à ce même titre waa PDS tamit dañoo am candidat on est parti ensemble que pour démontrer une seule chose que Macky Sall est minoritaire dans ce pays. ànd bi am na. ànd ànd bi am na quand même. politique la compagnonnage électoral. d'accord. ok yow je pense que je pense que xam nga tout de même que élection présidentielle. non mais non présidentielle je pense que tout de même xam nga ni que PDS dina am candidat. Barthélémy da nga ma da nga ma 12 ans après. waaw ma ci wax li nga ci déduire. man 12 après aussi lii laa ci déduire. lan nga ci loolu laa mais mooy li ma la wax. lan la après. bokk nga ci benn coalition coalition boobu ak ñi nga xam ne ñooy waa PDS. waaw ngeen àndaat nekk benn loolu laa la la politique. ok d'accord waaw ok léegi nag ba may xeex waa PDS ba may xeex PDS ba may xeex su ma jël gànnaay je suis pas une personne violente ba may xeex PDS dama doon xeex PDS avec des armes que me permettent la constitution d'être utilisée la parole la plume et l'image mais lan moo indi problème bi mais dañ ma song xeex ak PDS la loolu ma song dañ ma song PDS moo ko indi dañ ma song bi moo indi coow dañ ma song laa la wax ñu ne pap pap yéen waa TFM suñu leen sangoon tey du ngeen génn fii ay guitare du am ay góor a fi nekk di ngeen wane seen taxawaay nañu wax wax bu am solo ci dëkk bi rek. d'accord waaw mais pas nekk fii dina ay kan moo rey kan ça c'est nervi wax lañ ci waxu nervi Sénégal la ñuy gis tey nervi depuis mars 2021 y a eu plus de 20 morts gis ay nervi ci mbedd bi yor ay gannaay police leen di gunge gendarmerie leen di gunge kenn waxul balaa may dee nag nga njëgëm tamit ci kàddu yi gis naa fi ay kilifa diine ñu taxaw di ne dañuy wootee jàmm wante ci waxu xale yi fi ñàkk seen bakkan kenn déggu leen ci des nervis qui marchent en pleine ville kenn du ci wax yow wax ma ana procureur de la république ci événement mars ci événement mars 2021 ñaata ñi ñàkk seen bakkan procureur gisul déggul wante pour benn nervi kese képp rek donc bu fi ñàkk bakkanam devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur ma ñëw rek pendant onze ans on me poursuit un nervi qui attaque un élu du peuple dans une institution de l'État ñu may topp plus de vingt sénégalais ñàkk seen bakkan ñëpp gis ñëpp dégg procureur ngaangul waxul ba léegi dégguñu kenn ku ne j'ai nga ne lan. dégguñu kenn ku wax j'ai tiré man ma tiré. dégguñu Pape yow Pape yow tu as vu toutes les vidéos fii événement mars 2021 tu les as vues tu es journaliste. tu as vu des nervis encagoulés avec des armes à feu. kenn ci kenn waxul fii amul amul documentaire amul émission spéciale amul dara y a rien. alors Bart léegi da ngay dem cassation ak say avocat lan ngay def ci décision bi. lan nga ci nar def. ban décision. mooy décision bii nga xam ni moo wàcc tey. non lii politique la ñu confirmer condamnation la. ah politique la. waaw ban tontu politique nga ci nara a teg. avocat yi dinañ tontu man loolu c'est pas mon problème. non mais doo nga ni ma politique la. politique la lenn mën naa la ko wax. mën naa la wax dara. mais xam nga ni lii. bu continuer li la ci mën a fekk xam nga ko. dara duma ma ci fekk. non dara du ci fekk. dans 15 mois Macky Sall s'en va. waaw ah. mais mais d'ici 15 mois yi. mais d'ici 15 mois yi d'ici dara je reste à l'Assemblée nationale. te du la wax nag lan laa fas yéene def ba toog assemblée nationale yaa ngi fii maa ngi fii askanu Sénégal ñu ngi seetaan je ne bougerai pas de la mairie de Dakar incha allah et je ne bougerai pas de l'assemblée nationale incha allah. mais Barthélemy yoon waxul lool de. wala sa yoon nekkul ci yoon. Pape non dama ne la yoon waxul lool de. ban yoon ngay wax. non yoon laa lay wax man. waaw bon déjà waxu mairie bi nañu commencé par mairie bi. mairie bi kenn mënu ma fa jëlee c'est pas un crime te ci te te te ci délibération bii nii le pouvoir a tout fait pour transformer ça en crime. kon waxu mairie bi féetanoo boor mairie moom on bouge pas waxu assemblée la ñuy wax. xeex bi assemblée la. ba ñu egg ci assemblée bi rek loolu moom bu leen bu leen bu leen yàkkamti j'ai dit que Macky Sall est minoritaire dans ce pays je ne bouge pas de l'assemblée. mais xam nga condamnation. d'office da ngay perte sa mandat député mais loolu kay mooy li am. dañu ne condamnation définitive c'est pas encore définitif. bu mais mais loolu tax ma laaj la lan ngay def da ngay dem cassation lan ngay def nga wax ma. non parce que xam nañu ne appel boobu dafay suspensif wax ma lan moo ci am ma xam lan ngay def. waaw su ngeen invité suma ay avocat ñu wax leen mais man du ma ci wax parce que pour man lii ce n'est pas du droit c'est de la politique. yow naka nga mënee ne da nga may daan ci détention te bi. ban coup mortel maintenant coup mortel waaw maintenant xanaa coup ana fetel bi ana fetel bi fetel bu ngeen yor muy suma fetel du fetel boobu moo boom xale bi ngeen bëgg mais attends man ce que j'ai fait je vous l'ai dit on est en pénal yéen yaa leen ma duut baaraam ne leen man maa def li na ngeen indi les preuves ya a aucune preuve te il n'y jamais de preuve parce que ce qui s'est passé à Mermoz Sacré-Cœur dans les heures qui ont suivi c'est un complot d'État c'est du banditisme d'État munoo nekk Ousmane Ngom ministre de l'intérieur les premiers éléments d'enquête ont été produits par la police te yooy yaay chefu police mhm. loolu moo am. d'accord banditisme d'État nga ko tuddee. mais c'est du banditisme d'État. ok politique dem na ba boolewaat la ak ñoom. ba kan ba boolewaat la ak ñi nga xam ni ñoom ngay accuser banditisme d'État. mais kooku su la neexee nga wax ko. amee ah, mais loolu laay wax ni. ah Pape man Sénégal la ma ñor. Sénégal moo soxloo ñu def coalition bi. lii du ay affaire ay diine wala tarixa pour c'est la politique du ci dara du ci dara Macky fan laa jaarul ak Macky Sall Macky Sall ce que j'ai fait pour makisal Sall ay doom yu mu jur ils l'ont pas fait pour lui wante makisal Sall la ngi nii la ma kay fayee c'est comme ça c'est la vie c'est tout à fait normal lii mooy àdduna c'est la politique. d'accord léegi Barth tout à l'heure da ma danga ma da ma won ay articles de presse. yoo xam ni dafa la jox dëgg ci sa ci sa sa permis port d'arme. waaw ñoom ñoom de port d'arme. waaw d'accord cour suprême. léegi le 22 le 22 ah, août. cour suprême génne décision. ne ah, dellu leen ah, Barthélémy Dias permis de port d'arme. naka lañ may daane ci loolu. man laajuma loolu naka lañ lay daane ci loolu loolu mën nga leen ko laaj mais man li ma lay laaj mooy. naka yow laa koy laaj non non non. du ma ko laaj à une justice qui donne qui qui qui donne le droit pour le compte et le nom du peuple je ne parle pas cette justice. mais justice boobu moo la jox moo la moo la moo defal verdict bi verdict bi ci. xanaa dégg lu ma la wax permis port d'arme bi. xanaa dégg lu ma la wax da nga ma laaj ma ne la. waaw décision bi du ma commenter. non lii nga brandir tout de suite. waaw mu nekk loo xam ni da nga ni par exemple c'est une bonne décision pour yow. non da waxuma loolu ah. mais lan nga wax waxuma loolu. lan nga wax dama ne. lañ ma mënee daan. non lii laa la wax. mais article de presse lan la wax mais Pape c'est une preuve. qui montre que j'avais bel et bien un permis de port d'arme. c'est ça. kan moo comment maintenant cette même justice. waaw peut se permettre de dire que aw moon permis de port d'arme dama lay laaj parce que man Pape je ne comprends plus rien à la justice moo tax ma noppi et je continue à mener mon combat politique. parce que moo tax tey demuloo tribunal. non ma dama doon génn pour dem tribunal ñu ne ma joxe nañ verdict man leen bismillah du ngeen ma lekk du ngeen ma rey du ngeen ma yóbbu ci armel et après dans 15 mois. on verra si vous allez sortir cette décision de justice là dans 15 mois man ñàkkamtiwuma kenn fii yàlla rek a fi nekk tey dañoo am doole di ma jaay doole waaw ah, mais suba nag yàlla ngi fi. waaw ah, mais Barthélemy yow aussi yaa doole. ci kan si jaay doole wul par exemple nga ni ma assemblée nationale du ma fa bouger. mais parce que je ne. mais loolu jaay doole ko paase. mais Papa Ngagne est que est-ce nga lan la loi wax. non non xam nga man. Papa Ngagne bon est-ce la a wax loolu laa wax non. Pape ci condamnation loolu laa la wax. Pape assemblée nationale am na pouvoir tey saisir justice wax justice amatu leen droit topp Barthélémy Dias ba mandat bi jeex. comme justice am na droit saisir assemblée nationale ne leen condamné nañ ko définitive na jëlee leen ko fa. waaw waa waaw maintenant damay laaj kan moo am majorité assemblée du Macky moo am majorité du du loolu la Macky wax. nee na moo am majorité. non waaw maa ngi xool. non la majorité non entre ministre de la justice ak le président de l' assemblée nationale. Pape mais doomu ay commission daf fay am. Pape juste benn benn lu ñuy bind. Pape après ñu appliqué ko mu jeex. Pape man dañ ma jaay doole ci douzième législature taf tafe ma maa ngi leen di xaar ci législature bii ma xool fan la ñuy jaar. Ah, parce que c'est pas un combat juridique c'est un combat politique dañuy viser je l'ai déjà dit je ne serai pas candidat en wax naa ko fii sa kaw plateau fii te man damay joxe suma cadeau je le respecte wax naa leen kan mooy suma candidat ma leen kooku suñ ko galgalee wax naa leen kan mooy su kan laay jàppale tey <clears throat> maa ngi liir ci ay article de presse ñu ne Barthélémy Dias suñ ko condamné fii wala fële il est inéligible éligible à quoi man élection yi ma doon compétir compétir nag maa gagné loolu la yàlla dogal local maa gagné législative maa gagné ñoom ñoo taxaw ne kii assassin la mais waa Dakar ak waa Sénégal nee nañu ñoom comme na ngeen assassin la dañ koy fal man gëmuma ne que Sénégalais dina fal assassin je ne suis pas un assassin je suis un combattant de la liberté de la démocratie je me battrai jusqu'à mon dernier souffle contre l'injustice Macky Sall feesul suma bët te dunduma ko te xam na ko te lii yëpp ay caaxaan la yëgu ma yëgu ma ko sax suma suma yaram. parce que je suis quitte avec ma conscience. mais quitte avec ma conscience et je continue à mener mon combat. j'ai décidé de marcher vers l'essentiel pour le Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Euh, Barthélémy man dama lire article bu leer. Hmm. ci condamnation ci élu député. lu mu wax. li mu wax mooy. Hmm. su amee condamnation. dafay perte mandat boobu. yow nga ni ma doo jóge assemblée nationale. loolu laa mënut te comprendre. mais parce que pap est-ce que mën naa am est que mën naa la baaxee dara Pape su ma avocat yi su ñuy décider pourvoi en cassation. waaw Pape suñ ma àttee en cassation. waaw fii ak 15 mois. waaw jàppal ni tu confirmes ce que j'ai dit le dossier est politique tous les spécialistes du droit ñu ngi may seetaan xam nañ bu baax a baax que dossier bu mel nii suñ ko doon introduire fii ak ñaari at duñ ma wopp Cour suprême. mais xam lu mu bëgg ñu wooma fii ak 15 mois ndax sénégalais ñëpp xam na ne ko du xewoon ci dossier xalifa Sall di politique c'est la même chose ici c'est de la politique wante même su ngeen moo génnoon assemblée nationale Guy Marius Sagna mi ngi fa Abba Mbaye ngi fa Abbas Fall ngi fa ku lim jum ñeneen ak ñeneen ñu ngi fa lu ngeen di bañ a dund ak Barthélémy Diaz di ngeen ko dund ci assemblée bi à la kulli di ngeen ko di di ngeen ko dund assemblée nationale parce que bëgg a nekk ci dëkk nekk minoritaire bëgg a jël majorité te askan bi joxu la majorité di bëgg buum di buum yi te tegoo ko ci benn dëgg tegoo ko ci benn yoon et la preuve l'élection du président de l'Assemblée nationale l'a prouvé et l'a démontré ils ont violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de façon éhontée plus d'une dizaine de fois d'accord éhontée alors man Barthélémy li li li ñaaw gisuma ko ci ñoom ci yow laa ko gis Ah, kon bési mais ci yow laa ko gis Barthélémy li ma teg su bët. ci la maanaam ci ay fait ci assemblée nationale. mooy li ñu fa def. waaw mais loolu laa gis mu nekk lu ñaaw. mais yow da nga bokk ci presse boobu ki refuse de dire la vérité loolu mooy dëkk mais wax ma. da nga bokk yow xam nga fu may waxee. ci presse bi qui refuse de dire la vérité xam nga tax ma ñëw TFM parce que saa yi bu may ñëw TFM ñëpp ne ma bul dem TFM man la damay dem TFM ce que j'ai à dire je le dirai sur la TFM yéen votre groupe moo xam seen journal seen rajo. seen télé yéen est-ce que yéen wax ngeen les violations du règlement intérieur vous devez informer juste et vrai vous ne l'avez pas fait vous am ngeen nag droit féetoo gauche wala droite wante vous n'avez pas le droit de ne pas dire la vérité non di nga ma bàyyi ma wax di nga ma bàyyi ma wax pap di nga ma bàyyi ma nga ma bàyyi ma wax Papa Ngagne la presse la presse sénégalaise tey la presse sénégalaise tey est mal vue par les Sénégalais ce n'est pas le caméraman ce n'est pas le, journal, le, le journaliste ce n'est pas le photographe on parle des patrons de presse loolu mooy wax ci te duñ ko raay yow mënoo nekk ma ñëw rek s'il te plaît mënoo nekk assemblée nationale parce qu'on parle l'assemblée Pape Pape Pape Pape duñu ma may ma wax Pape Barthélémy Pape xam nga dama ne lu ma bëgg ñu d'accord ci ba pare euh, Pape da nga ma poser question di nga ma may ma wax Pape poser wu ma la question dama la wax li ma xalaat ci li nga def assemblée nationale mais dama bëgg nga dégg da nga poser question ak teg ci yokk ci affirmation c'est très grave ci man lu ma gis yow yaa def lu ñaaw Pape Ngagne damay poser une question Macky Sall est candidat à l'élection présidentielle Papa Ngagne est candidat à l'élection présidentielle Massamba Lé et Mademba Lé ngeen dem déposer seen caution CDC caisse de dépôt et de consignation ñu jox leen seen récépissé ngeen dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel valider seen ay candidature jour élection bi ñu dugg ci ay centre de vote dugg ci bureau de vote il n'y a que le bulletin de Macky est-ce que yow di ko nangu yow doo ko nangu doo ko nangu doo déposer sa caution conseil constitutionnel enregistré sa candidature jour élection ñu ne la yow sa bulletin nekk fa c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale j'ai ma candidature a été enregistrée en bonne et due forme mm. ainsi que bossu Lamine Thiam ak bossu Ahmed Aïdara au niveau du secrétariat général de l'Assemblée nationale secrétaire général de l'Assemblée nationale mu may dégg en bonne et due forme heure vote jot amul fenn fu ñuy wax ci règlement intérieur que président de séance am na pouvoir indi gendarmerie amut amul fenn fu ñu bind fii. non si si loolu am na. amul non si loolu am na yooyu tam. amul non yooyu tam. Pape Barthélemy bul wax loolu. Pape amul et nañ taxaw fenn ba pare nañ taxaw fenn. waaw Barthélemy xam nga fu ma bëgg ñu taxaw ci. Hmm. mooy li ngay wax ci groupe bi groupe GFM wax loolu am. non non si non non non non si waxoo am. je maintiens mes propos non non mais d'accord sañ nga ko. je maintiens mes propos ba ñuy xeex Ablaye Wade fii gisoon nañ taxawaayu Youssou Ndour te manqué nuyu au passage suma grand la. gisoon nañ fi taxawaayu groupe Futur Média ba ñuy xeex Ablaye Wade. ok le premier opposant de Abdoulaye Wade c'était le groupe laa koy waxee. d'accord léegi xoolaat leen seen taxawaay léegi Bart. xoolaat leen seen taxawaay. d'accord Bart parce que à l'Assemblée nationale. Il y a eu de violations du règlement interne de l'Assemblée nationale. léegi a mais, exercé mais, un droit. léegi balaa <coughs> kenn xeexuñu ak kenn. liiral ma bi lan la wax. balaa ma leen lire article 156. ah non mais attends liiral ma article 156 non s'il te plaît on commencera d'abord par l'article 51. non balaa ma leen liiral article 156. avant ñuy dem parce que une loi a d'abord un esprit j'ai été législateur je suis redevenu législateur l'article 51 xam nga lu mu wax jour bu ngay entrer en fonction entrer en fonction ak installation bokkul on parce que fii bi nañu ko ci wolof dañ ko bind ci tubaab dañu ne jour bu conseil constitutionnel di proclamer résultat définitif jour boobu la Barthélémy Dias nekk député parce que à partir de jour boobu Barthélémy Dias a une immunité parlementaire à partir de jour boobu Barthélémy Dias am na juróom-ñetti fan pour démissionner entre ministre ak député fan ngeen mësee gis ministre di toog en même temps nekk député ci assemblée nationale mooy benn bu ñu njëkk a kaas. d'accord bu ñu kaas. deuxième bu ñu kaas balaa ñu am président de séance ay huissiers ñëw ci distribuer ay ay enveloppe ci enveloppe boobu ma ñëw rek s'il te plaît ma mais mais s'il te plaît mais comment comment vous pouvez inviter quelqu'un vous ne laissez pas parler c'est scandaleux ça c'est tout de même scandaleux dama ne munoo nekk ministre ak député en même temps di siéger xanaa yéen loolu yéen journaliste yéen loolu gisu leen ko yéen ba may ñëw di wax am na ay enveloppe suma bulletin nekku ci loolu yéen déggu leen ma gisu leen ma mais ñëpp ko dégg ci télé bi lañ ko wax wax ko ci rajo bi mais dañ ko wax ci rajo bi wax ko ci télé bi s'il te plaît mais dama ni la loolu mais man pareeguma mais pareeguma le scrutin secret le scrutin secret Barthélémy le scrutin secret Papa Ngagne ce règlement intérieur dañ ko bind xam pour lan un parti au pouvoir ça veut dire que dañu ne képp kuy candidat képp kuy candidat ñetti bulletin moo am li nga wax ci assemblée nationale li nga wax ci violation parler donc li nga wax ci violation assemblée nationale parce que li nga wax parce que l'émission l'heure est tellement grave et vous êtes dans l'émotion laissez les gens parler vous avez refusé d'informer les gens. non non non émotion passée na di saaga un groupe comme ça. di ci wax lu la neex. Pape kenn saagu leen j'ai un constat. est-ce que émotion que est-ce que toi na passé nga ne ma man su ma ñaar nga gis assemblée. foo ko teg fan ko toi tu es qui pour me juger tu es qui pour me juger tu n'es pas un juge et tu n'es pas un enquêteur il faut qu'on apprenne à se respecter. Moi, j'accepte de venir à tes, à tes émissions parce que je suis, je, je suis partant pour le débat contradictoire mais mënoo taxaw fii sa siis ne ma yow Barthélémy Diaz yow laa gis nga def ay ñaawteef. d'accord mais kon yow. mais je pose une question député non député. bu amoon mais loolu sañ naa ko. Pape député bu amoon. sañ naa loolu man gis-gis sañ naa ko wax man. Pape sañ naa wax li ma gis. Pape lu ñaaw la. Pape xanaa yow kon yow gisoo yow député bu amoon 83 procuration gisoo ko ba benn député di ko ne. delloo ma suma procuration. ñaawlu naa ko non non non boobu moom ñaawul leen ko. Ah, lenn rek ngeen fi. ñaawlu da nga ma len wala laajuloo ma. lenn lenn ngeen fi ñaawlu da nga ma laaj wala laajuloo ma. Papa Ngagne lenn ngeen fi ñaawlu. voilà dans toute la presse. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est soi-disant le comportement d'une opposition qui s'est battue contre la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ça va se passer comme ça jusqu'à la fin parce que Assemblée nationale wala gars yi teg affaire yi ci yoon wala nii lay demee. parce que tant que ñoom ils étaient cent trente ñeneen ñi nekk trente wala cinq. xam doole. léegi léegi baax mais yow mënoo nekk tey quatre vingt. ñeneen nekk quatre vingt nga damay jaay doole mënul nekk. ok dafa mënul nekk. alors donc moi je reviens à ce que article cinquante six bi. l' article cinquante et un a été violé. c' la le début du mandat. l' article cinquante trois mooy police intérieure amul fenn ci police intérieure fu ñuy wax le président de séance qui n'est le président de l'Assemblée nationale a le pouvoir de faire rentrer l'armée ba Sénégal doone Sénégal ba tey c'est la première fois où l'armée est rentrée dans l'hémicycle en 1962 armée bi duggul ci biir dafa encercler assemblée mais duggul yow naka nga mën a toog pour l'élection d'un président tu fais rentrer l'armée du Sénégal dans dans l'enceinte de l'hémicycle lu tax te ñun lenn rek la ñuy def rek appel au règlement waxuñu fi leneen à apar à part appel au règlement te su ngeen gisee ci vidéo bi am na fu ma jëlee micro bi lu tax ma jël micro bi dama ñëwaat ci présidente bi. ma ne ko ah, madame la présidente. non il faut rester non. la. procédure mooy bi di wax. Euh, Pape. non damay laaj ndax mooy bi ngay wax noonu. Pape le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mooy suñu alxuraan mooy suñu bible. oui dañu ne suñuy installé président assemblée nationale amuñu beneen débat bu mën a am ci assemblée. man naa jot kii bi. am règlement bi mhm. allez-y waxal maa lay dégg. non continué. non non mënu ma ko xool di di ngay di di kii li ma ci bëgg a xool. naa la ko wax après li ma ci bëgg wax naa la ko wax après. non mais kon je te laisse d'abord consulter d'abord le règlement après tu poses ta question. non dama ni. la bëgg a laaj mooy. <clears throat> article cinquante da nga ni ma. liiral article cinquante et un début du mandat article cinquante page trente quatre article page bon début du mandat d' abord ça c' est ça c' est d' abord. non loolu dafa am am werante début du mandat bi xam nga werante bi ci am. Pape Pape Pape on parle français. ok installation. ak ak en fonction bokkul. nee nañu entrée en fonction bés bu conseil constitutionnel di proclamer les résultats définitifs à partir de ce jour là tu entres en fonction. Mhm. installation mooy lu ñu amoon assemblée nationale te danañu ne su soo entré en fonction am nga juróom fan pour démissionner. Mhm. ñun ñu dem sàkku ci moom le respect du règlement intérieur mais femme bi gantuñu liiral article 53 police intérieure mooy ngi page 36 liiral article 53 57 ak 59 Assemblée nationale quand on parle de personne on parle pas de député et chaque fois qu'on parle de député on mentionne le nom député fii dañu ne président Assemblée nationale la ñu wax waxuñu président de séance dañu ne président Assemblée nationale am na sañ génne bépp personne bépp doomu aadama buy def lii wala buy def lii wala buy def lii. man ci assemblée nationale je ne suis pas une personne je suis un député. donc amul kenn te puis da di nga gis di nga gis fii damal damal article damal damal article cinquante neuf page trente ñu wax la député bu jalgati dañuy commencer un dem deux dem trois dem quatre te président balaa muy jël décision. da koy soumettre à la plénière plénière mooy décider est-ce que député bi dañ koy suspendre pour la durée de euh, de cette commission en fait comment euh, comment dirais-je encore de ces travaux-là ou pas mais président Assemblée nationale ce n'est que d'abord qu'un député c'est un député qui a été choisi pour présider l'Assemblée nationale ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale du Sénégal est une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée te secret mais scrutin lu tax ma ne lii dañ ko nar a modifier parce que ils n'ont jamais pris en compte assemblée na ñëw am ñett ba ñeenti candidat moo tax ñu ne assemblée su ñuy fal président ñetti bulletin rek moo am bulletin candidat bi weex la soo ko bëggee votel da nga koy votel weex soo ko bëggee votel nga nga votel ko bleu soo bëggee mandu nga boole ñaari bleu ak weex waaw maintenant fan la règlement wax su amee ñett wala ñeenti candidat nu muy demee waxu ko waxu ko fenn moo tax ñu ñëwoon daf leen proposition ñu ne leen comme fii ñu mënul bind ak ñu mënul lire dañ fi xaw a bëri et la preuve règlement bi nee na su ñuy fal le président de l'assemblée doyen d'âge buy yéeg waxuñu day nekk doyen d'âge ah, day nekk doyen d'âge bu mën a bind ak mën a lire ok su ñu demee ba ne bind ak lire dafa am lu tax ñu ne bind ak lire mhm. ñu ne ñuy toog ak euh, président de séance boobu day nekk ñaar ñu gën a féetoo ndaw mais tamit ñu mën a liir ak bind mhm. waa maintenant assemblée nga am fa ay député mënuñu lire mënuñu bind yow naka nga mënee jóg jël benn bulletin bind ci turu xaw ma waa ji Diop xaw ma naka bind turam jël soi-disant suma bos bind suma tur bosu Ahmed Aïdara nga bind ba euh, turam bosu Lamine Thiam bu PDS nga bind turam waaw maintenant damay laaj waa ku bëgg a abstenir ban bulletin lay jël ku bëgg a voter contre ban bulletin lay jël. d'accord moo tax ñu proposer leen comme suñuy fal ay mair wala ay président conseil départemental. dañu tànn ay couleur ok te loolu amul fenn fukk règlement intérieur di dàqee d'accord ñoom ñu taxaw ne couleur du am ok ñu ne leen lu tax ñu ne na ngeen na ngeen jël couleur parce que ñun xam nañ que ci biir assemblée bi am na fi benn député bu fi am ay procuration pour quatre-vingt-deux députés te tegu ko ci yoon parce que même pour procuration yi mais xoolal page 53 lépp boo ko bëggee expliquer dafay ko non mais non parce que il faut nga comprendre ma aussi xoolal non non déglu Sénégal xamuñu ku tooñ ok ku fayu lañu xam xoolal si te plaît dernier dernier article bi laay wax xoolal article 88 page 53 nee na pour que Barthélémy Dias jox papp ngañ procuration Pape Ngagne votel ko Barthélémy dafa noor a feebar indi preuve que dafa feebar wala mi tukki wala mais naka la mi jaas mën na nekk ci assemblée national toog Pape ngañ di à sa place fan la am d'accord léegi baax Barth xam nga li nga wax nii fan la am non xam nga ñoom loolu mën nañ ci tontu mais li ma bëgg yow nga tontu ci. non dama bëgg yow nga tontu si non non non xaaral rek baxte. loolu ñoom dinañ ci tontu non ñoom dinañ tontu. ci loolu duñ ci tontu. pourquoi duñ ci tontu. ils ont violé la loi. waaw ah, mais pourquoi duñ ci tontu. ils ont violé la loi. mais Barthélemy. waaw ñoom dinañ tontu ci loolu. duñ ci tontu non mais xam nga lu ma bëgg yow nga tontu ci li ma lay wax. ci lan noonu. li nga wax. waaw li nga wax li nga def yow. waaw par exemple loolu ñoom bu ñu ko defee. lan laa def non non. damay laaj lan laa def taxaw foofu di xatraay di xëcc ay micro di ko yóbbu war nga def loolu. loolu laa la laaj. xëcc micro ça c'est rien du tout ça buddi micro. assemblée nationale foofu en tant que maire de Dakar nga ni ma seen rien du tout. mais yow dama ne yow yow ay waxu. en tant que député mooy lan lan mooy waxu maire de Dakar. yow ngay taxaw ñuy violer la loi devant tes sous tes yeux nga may waxu maire de Dakar kon yow da bëgg a wax ne ni tey nga nga njëgal ci kàddu yi quoi ça veut dire que tey su ñu waxoon am na kuy dugg kër Barthélémy Diaz noonu siif jabaram damay tere ay maire Dakar loolu may ban wax dama ne nañu bàyyi waxu naa féqi te wax wax ji kan moo la loi. man balaa may nekk maire de Dakar je me battais dans ce pays là je me suis toujours battu musuma xeex pour suma pap musuma xeex pour suma yaay musuma xeex pour suma ay doom je me suis toujours battu par rapport à mes convictions pour le peuple sénégalais te assemblée <clears throat> assemblée national dama ko wax ci leeral Papa Ngagne commencé gul sax xeex bi commencé gul dinañ ko teg ci yoon ñëpp a toog teg ko ci yoon ñu wàccee yoon ñu won leen nag. lii di fulak fayda c'est tout parce que ça va pas continuer. non non PAM. Pape euh, Pape Barthélémy Pape Macky Sall est minoritaire. d'accord Barthélémy Macky Sall déglu ma rek dafa am dafa am fu Macky Sall jaar ak ñun. Macky Sall dafa njëkk a éliminer suñu liste titulaire teg ko ci jaay doole Macky Sall dellu siwaat ñu dañu ne élection. bu ko bu ko tegoon ci doole yow sa liste Dakar dina dem. Pape non dama ni bu doon loolu ngay wax noonu éliminer éliminer. Pape lan moo yóbbu sa liste Dakar yow. pap parce que yow mës nga ci dëkk bi. élection. ñu ne la titulaire day bokk suppléant du bokk wala suppléant mooy bokk titulaire du bokk Pape fan nga mës a gis coupe d' Afrique des nations wala coupe du monde ñu ne titulaire mooy joué amul am amul remplaçant wala ban remplaçant mooy football mais titulaire amul fan nga ko mës a gis fan fan je t'écoute fan et tu ne peux pas avoir une liste titulaire sans une, liste suppléant mënul nekk mënoo am suppléant te amul titulaire mënul nekk la liste de Dakar on on était dans notre droit man ba may dem DGE je suis dans mon droit amul fenn fu ñu bind ci code électoral que une erreur matérielle peut pas être rectifiée amul fenn fu ñu ko bind ci code électoral amut. d'accord Barthélémy donc su ma la déggee li xew assemblée nationale Guy Marius Sagna def ko Barthélémy Diaz def ko da nga koy assumer amul dara loo ci regretter. commencé gul xeex bi commencé gul. mais dégg nga li président de la république wax ci discours am. Pape non président de la république dégg nga li mu wax ci discours am. président la lay tontu. ñaawteef yooyu am ci assemblée nationale. dootul nangu muy am ci assemblée nationale. ñu ngi koy xaar moom. ok moom ñu ngi koy xaar moom déjà moom président nag commencé d'abord di compter lu ko fi dese ci ay fan. c'est 15 mois et qu'il arrête di fooy xelam soit disant day menacer ay nit président mënu fi menacer kenn tu vas pas être minoritaire dans ce pays la peur se lit sur ton visage. la peur se lit sur ton visage ngay fooy sa xel dama ne la session démarre le 15 octobre tund bi incha allah dina wàññeeku affaire u licence de pêche pour nappkat yi dinañ ko tagaat ci yoon maintenant Macky Sall na xool le comportement opposition bi ñu ngi xaar Macky Sall déglu ma rek am na si Khalifa Karim oxo euh, de je parle d'abord du peuple sénégalais le problème politique on le réglera après dund bi dafa cher. Ah, non non non. Ah. ma ñëw rek mais Pape. non mais mais bon Pape maintenant qu'on continue à faire l'émission parce que tu ne laisses pas les gens dérouler c'est ça. c'est d'accord allez-y continue continue c'est c'est c'est pénible quoi. continue. Pape par respect aux Sénégalais du ma la wax ce que je pense de Macky Sall. rien ne changera à l'Assemblée nationale ba ci mën lui et son soi-disant ministre de l'Intérieur et sa marionnette de président de l'Assemblée nationale. ñu ngi ñu ngi leen di xaar ñu xool fan la ñuy fële ak kes ce qu'ils peuvent faire contre nous ñu ngi leen di xaar fii c'est pas une garderie d'enfants c'est la République du Sénégal c'est l'Assemblée nationale du Sénégal kenn nommé wuñu du décret on a été élu Macky Sall se prend pour qui pour taxaw télévision dina ay woy li su ngeen ko defaatee dinañ ko defaat soo wàccewaat yoon ñu defaat ko ba ñu xool fan lay mujjee. waaw ah, mais fi mu mujjee gis nañ ko. assemblée nationale waaw. bi bi bi bi force bi euh, sécurité bi ñëwee. waaw ah. mais lépp dafa jaar yoon. dafa jaar yoon mais bien sûr. ah tu crois. ah mais lan moo fa jaarul yoon. un président de l'Assemblée nationale élu avec. moins de la moitié des députés yoo ngi ne dafa jaar yoon. ah mais euh, fais tes commentaires et je te laisse avec tes commentaires. non da ngeen ni pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal Sénégal amul président assemblée nationale vous avez une marionnette à la tête de l'assemblée nationale parce que député moo nar a fal président assemblée nationale du gendarmerie moo fal. il a été élu et installé par la gendarmerie nationale man je suis député candidat déggu leen suma tur kenn woowu ma sax pour mu ñëw voté kenn woowu ma ba ñuy woo Abbas Fall ba muy yéeg dañ ko téye ne ma poku président assemblée nationale ban président ban président l'assemblée nationale n'a pas de président on y a installé une marionnette au service de Macky Sall maintenant nag ci kanam raw di bët ok ak faux député à l'assemblée nationale bokk ci Yewwi Askan Wi bokk ci Benno Bokk Yaakaar pas Yewwi benn bokk yaakaar. itam looy wax nii. mais Pape le faux député était, était il a été déniché dans le groupe benn bokk yaakaar tamit tout de même on était à l'intérieur. xanaa ko mais Barthélémy xanaa ñaari faux député la. Pape mais xanaa ñaari faux député la Barthélémy man je cherche pas à savoir ce que la presse a relayé le député là qui est monté fàttali naa sax turam il a la preuve bañ koy génne bañ koy génne ñoom ñoo ko remplacé ak benn femme. Barthélémy Coumba Ndoffène Ndiaye. ma dama ne bañ cee génn non dama ne Coumba Ndoffène Ndiaye. mais mais Pape je xam nañ que Yewwi Askan Wi la bokk. il a été remplacé par une femme de Benno. je je je, je n'invente rien du tout on y était. non attends expliquez lu ma mën a comprendre li wax ni mën ma ko xam. mais nee gis nañ ko ci photo yi nga xam ni. waaw mais ñëpp gis nañ ko photo yi leader yi. Euh, Yewwi yi bokk gis nañ ci photo moom personnellement. oui mais il n'a pas été investi sur notre liste. il est sorti sur notre sur notre liste moo tax lépp jaxasoo foofu gis nga moom bañ koy signalé ñoom ils l'ont remplacé par une femme femme bi bu muy dugg ñu ne ah député bu baax bi mi ngi toog femme moo dugg jigéen moo dugg ñun yaayu aucun faux député chez nous aucun ñoom dañ ko génnee indi ba benn jigéen ne maintenant kii mooy député bu baax bi une femme loolu mooy dëgg Pape. mais Coumba Ndoffène njaay xam nga ko. non je connais pas. xawma ko. ok d' accord léegi Barth est ce que mën nga ma wax lan moo indi ñaari candidature yi président yi euh, assemblée nationale ci biir Yewwi Askan Wi lan moo ko indi. mais l' ambition le moteur de la vie man mënu ma tere kenn nekk candidat mais man j'ai été désigné par la coalition Yewwi Askan Wi. ah mais xam nga désignation bi li ma ci jaaxal mooy. je respecte tout le monde wante tu retiendras une chose je suis un leader né en toute humilité Ahmed Aïdara suma rakk la. te suma xarit la wante su ma nekkoon place am lu mu def du ma ko def wante nag je ne blâme pas parce que je considère que Ahmed n'a pas la culture politique que nous avons nous avons fait des jeunesses politiques nous avons fréquenté des bureaux politiques nous avons fréquenté des comités euh, centrales etc Ahmed euh, dafa ànd tamit ak ay nit c'est tout à fait normal peut-être ay nit ne ko du tax pourquoi pas toi mais moom Ahmed xam na fu may waxee ba may dem Paris yëg na suma oto ñu dem ba aéroport ma waxtaan ak Ahmed ma expliqué ko lu tax nogul nekk candidat pour présidence assemblée nationale ma jox ko ay argument expliqué ko ñu ñu ñëw ci poste vice présidence yi mais expliqué ko lu tax ce serait très difficile de défendre sa candidature pour un poste de vice président parce que quatre rek dañ ci am te parti yi nga xam ne dañu am ay envergure nationale ils vont prétendre à ces postes moo mooy PASTEF mooy PUR mooy PDS wallu ak euh, taxaw comme man yàlla mës na ma baaxee ma def assemblée douzième législature ma expliqué ko lan mooy président de groupe parlementaire lan mooy vice président de groupe parlementaire lan mooy président de de de commission ak lan mooy vice président lan mooy secrétaire élu donc je lui ai des pistes mais il s'est entêté ne moom dafa bëgg nekk candidat présidence ma ne ko ah, d' accord bisimilah da la accord mais en amont est ce que amul fu. yow yi décidé woon que ni une fois à l'Assemblée nationale kenn ci leader yi mooy nekk président Assemblée nationale. non on m'a désigné Barthélémy Diaz comme étant le candidat de Yewwi Askan et ça Ahmed Aïdara était au courant te on le doit annoncer dans la conférence des leaders. ah man li ma jaaxal mooy yow yaa ko annoncé. non non non non yow yaa ko njëkk a annoncé bien avant que communiqué bi génn ci jour J. communiqué bi mhm. man xamoon naa que communiqué bi day génn. le communiqué est sorti tardivement à l'aise mais loolu amul solo parce que bon xam nga Pape xam nga lu tax ma ne la amul solo parce que man ma mere Ahmed parce que politique du diine politique du diine quoi je veux dire xam nga nga nekk jullit ñu ne la alxuraan dafa la tënk ci lii wala nga nekk catholique ñu ne la bible bi dafa la tënk ci lii nga déggee ko noonu mais politique c'est c'est un choc d'ambition mais pour man su ma naroon tey critiquer Ahmed Aïdara du ma am argument parce que je n'ai pas d'argument pour le PDS parce que PDS dañu nekk ci intercoalition logique pour logique ñoom ñu am 24 députés ñun ñu am 56 députés waaw est-ce que xalaat nga yow que waa PDS noonu lañu am sax sañ-sañ ñoom dañuy nekk candidat pour intercoalition mais non normalement mais ñoom ils sont sur des principes et nous on considérait que vu la gravité de l'heure principe taxawu fi parce que foog ñu jàkkaarloo ak Macky Sall wante man Barthélémy Dias vu ma trajectoire fu ma jaar ci PS je suis mal placé pour dire au PDS narul am candidat wante logique pour logique man de su ma nekkoon place su PDS te mu wóor ma ne que tey le Sénégal souffre de Macky man ma man ma jàppale ñu ma ëppale ay député ànd ak ñoom mais loolu su ma gis-gis la. d'accord alors laaj naa la léegi lu jëm ci amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall <coughs> hmm. nga ni ma non loolu après la pourquoi mu nekk après. loolu priorité la war a doon. c'est politique. ah mais comme c'est politique aussi priorité la war a doon parce que loolu nekkoon na thème de campagne wax ngeen ko ñëpp dégg ko. lan ngeen ci xaar ci loolu. mais Pape ñu nga xam ni ñu ngi fi tey di ñaan yàlla na Barthélémy gaaw a jógee assemblée nationale mais parce que xam nañ que lii dafa bokk ci yenn xeex yu may xeex te day jàll. day jàll parce que Macky Sall est minoritaire du ma moo waxoon dafa amoon 83 du loolu la waxoon waaw mais su ma juumalee foofu am na am na foofu kenn ko fa meral pour ne pas am na ñu fa mer waaw maintenant lu nga wax léegi nii xam nga ñun am nañ ci intérêt PDS am nañ ci intérêt kon déjà on on est déjà kon 80 te on ne modifie que la que le électoral lu Macky Sall bi noon laa mooy le mot électeur boobu rek la ñuy changé teg ci nag ci assemblée bi am na fa ay non ñoom tamit ñu ne ñoom tamit ñu bokk tamit ci opposition. d'accord on aura l'opportunité de voir s'ils sont de l'opposition ou pas. d'accord alors non inscrits yooyu kenn ki nga tuddee ko mannequin kenn ki nga gaaruwaale ko un négri. non defuma loolu lan nga def. defuma loolu lan nga def. tontu mooy mais ma dégg nga wax li nga wax. tontu du forox. kenn ki nga tuddee ko mannequin kenn ki nga ñoom ñëpp nga xas leen ñoom nga xas leen. dama ne l'Assemblée nationale ce n'est pas une piste de mannequinat yow munoo egg démb musoo toog assemblée. xamoo dara ci assemblée ngay bëgg a wax ci lu nga xamut tout de même respecter les gens man lu mu bon bon bon. j'ai fait cinq ans à l'assemblée mais dafa war a réciproque respect bi nga wax nii non pas du tout. non dafa war a si si pas du tout xam nga non déglu ma xam nga man dinaa wax dara. ok quand il y a eu le premier soi-disant le problème ak Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko waxee xaw ma lan man kenn dégguma ci man biir aar Sénégal peut-être awma liste bi nii wante biir aar Sénégal am naa fa doomu ndey mu tudd Thierno Bocoum. te man ruus naa tey di xas les hommes politiques si je suis sûr et certain qu'on mène le même combat mais de quel droit ils se permettent eux di wax ay wax yu nga xam ne dafa daanu saret ay wéy assemblée bi amul amul rupture amoon rupture yow fekkeewu assemblée nationale 165 députés Macky Sall am 150 ñu nekk quinze ñu lay saaga di la xas ak di la code ay restaurant ak ay di mais y a même des députés qui ont été physiquement agressés yow yaa ngi wax ay waxu man mannequinat ak aigri man fu man su ma toogee tey assemblée non inscrits je les considère comme les opposants ku leen di jéem a laal physiquement ñoom ñoo njëkk a considéré seen bopp moom opposant non non s'il ñoo non un opposant c'est un comportement c'est un comportement un opposant c'est d'abord un comportement c'est ensuite un discours et une posture Pape par devoir de solidarité de groupe les non inscrits ku leen saaga ma jóg leen laal ma taxaw parce que je considère qu'ils sont opposants mais ñoom tamit par devoir de solidarité si ils nous voient nous battre pour des principes s'ils ne sont pas capables de nous rejoindre dans le combat le minimum de courtoisie et d'élégance c'est de se taire parce qu'on combat de l'injustice on combat des violations du règlement intérieur ça s'appelle de la solidarité de groupe d'accord alors mais xeex boobu ngay wax principe yooyu mais am na ñu jàpp ni ay principe cest partage la parce que ñu jógee ci Euh, élection président assemblée nationale lan lañ ci teg dem ci bureau yi ak yooyu mais coow amu fa ba démb au non tey au moins commission yëpp taxaw na coow amu ci. ku la wax coow amu fa. non est-ce que non xam nga ni bu fa coow amoon. lu tax caaw pap lu tax gars yi convoqué leen 10 heures gars yi installé ay 19 heures. mais c'est parce que li ñu wax te ma dégg ko. Mm. mooy yeewi askan wi ñoo déggool woon ci seen biir ci post yi naka lañ koy gere amut. ma leeral la ko amut xëccoo poste yi moo ko indi woon amut. waa benn bokk yaakaar. ñoo fa bëggoon indi yebeel di wax ay commission bi lañuy jël bii la ñuy jël ñu leen du fi dal ñu ne ñu leen dama ne du fi dal kaay la ñuy waxtaan. te nu mu mujjee. waxtaan ba ñu am lu ñu bëgg ñun sinon delluwaat plénière doorante foofu rek ay coup de c'est tout parce que le règlement lii ak lii ak lii ak lii la wax ngeen taxaw di ne non commission bi la ñuy jël bii la ñuy jël bii la jël yan nga duñ ko def ñoom maintenant ils ont compris le message. on on dañuy waxtaan ba jubóo sinon la woon fa woon ba woon rek te moo tax gars yi nag ñu toog waxtaan c'est tout c'est pas compliqué te noonu lay demee ba manatu bi jeex waxtaan mais ay ngay violer di viole di viole di violer maa tey maa tey ba ba fan ba kañ ça suffit da ngeen fa dugg gendarmerie ñaata assemblée nationale ci àdduna bi. ngeen gis député yi di xeex di dogante ay coup de poing yëkkati ay chaise di ko dóor mosu leen fa gis police dugg wala gendarmerie mosul am en Asie en Europe en Amérique partout en Afrique partout fii y avait peut-être une violence verbale mais dóoruñu benn député benn député laaluñu lu tax gendarmerie di dugg la gendarmerie est rentrée pour faire un forcing tey nag à la décharge de la présidente c'est pas elle qui appelle la gendarmerie présidente de séance dafa am benn waaye bu fa nekkoon seen group yoroon ay procuration président bi dem na ba ne on est d'accord pour les couleurs moom moo taxaw ne couleur du fi am sinon ma démissionné moom député boobu moom moo wax secrétaire général woo gendarmerie secrétaire général assemblée nationale musul am secrétaire général bu bokk ci parti politique musul am assemblée nationale tey secrétaire général il est membre de l'APR il est maire de Nganda APR noo nekk nag secrétaire général et le secrétaire général est supposé à équidistance mais nag xam nga Pape Wolof Njaay nee na ëpp baax na ci laax bu tàng ëpp baax na ci laax bu tàng ce qui s'est passé lundi dernier à l'Assemblée ne se repassera plus à l'Assemblée xam nga lu tax ils ont compris le message et au passage au passage je félicite Oumar Youm président du groupe parlementaire parce que ils ont compris wala waxtaan juboo wala doonante ay coup de peigne parce que lii da ngeen di ko respecter par force amul s'il vous plaît amut ñun nag lu ñu yoon mayul ñu màndu toog lu ñu règlement intérieur tere ñu toog bàyyi mais règlement intérieur may ñu sañ-sañ yow nga taxaw fa loolu lu fi am. day am léegi Barthélémy day am d'accord li ngay wax dégg naa ko mais est-ce que règlement intérieur may na la nga gàddu yoxnu bi yóbbu. buddi micro bi yóbbu règlement intérieur may na la loolu. mais non xoolal lii non boo boo bu fekkente ni d'accord. la tu poses une question yow laa jox suma règlement intérieur wan ma fan la règlement intérieur tere ma jël micro wala jii jël yoon wan ma ko ci ban article wan ma ko wan ma fu ñu ko bind. Ah wan ma fan lañu bind qu'il est interdit d'arracher un micro ou de prendre une urne wax ma fan la ko bind. donc suñ ko terewul rek dañ koy def. assemblée nationale c'est pas interdit par le règlement intérieur. c'est pas interdit c'est pas interdit. ah mais kon c'est pas interdit. biir assemblée nationale nga jël pistolet door ko nit c'est pas interdit. Pape non dama lay laaj parce que biir mu nekkul fii tu parles d'un crime on parle pas de crime on parle d'actes ce sont des actes politiques qui ont été posés dans une enceinte politique et dans un contexte politique. Pape wolof Ndiaye nee na fulla mooy jaay daxaar ñun du ay ragal te du ñu ay naafiq te Pape les sénégalais ñun la sénégalais yi fal te la balaa sénégalais yi ñu fal. sénégalais boo yee deux heures du matin ne ko Barthélémy Dias xam na lan la Barth sañ ak lu mu sañut sénégalais boo yee trois heures du matin ne ko Guy Marius Sagna mu ne la lii la mën ak lii la mënut kon nag ñun bettu ñu fenn sénégalais yi ils nous connaissent très bien fulla ak fayda rek ba am ci ndam. d'accord ku mu neexut tamit na la yàlla may xolu muñ parce que noonu la noonu la mbir bi di tëddee ba Macky Sall ak ay ñoñom nekk ñit c'est tout. ok alors nee doo ci tontu doo ci doo ci doo ci wax dara. discours président de la république ci assemblée nationale. day fooyee xelam moom mu ngi may seetaan ah. yow jàppaloo yow yaay fooyee sa xel yow. moom mooy fooyee xelam yow laa la wax. moom mooy fooyee xelam jàpp nga ni président de la république dina jàkkaarloog askan wi wax ak ñoom. dama wax ak député yi nga ne dafay fooyee xelam. yow day wax dëgg yàlla de Papa Ngagne de kaddu Macky Sall de jago nga ci mere sa doom kaddu Macky Sall ku ci mere doomam de da ngaa wax dëgg yàlla da ngaa da ngaa lu xew Macky Sall kaddu ban valeur la am ay je vais je vais tu vas rien faire rien du tout te troisième mandat da nga fi tere. ok voilà alors Bart da waxoon ni après màggal gi da ngay demander askan wi ñu envahir assemblée nationale. dama ne après màggal bi. waaw nous allons travailler sur une proposition de loi pour faire en sorte que le troisième mandat ne soit même pas interprétable. askan wi dugg biir assemblée nationale wax nga ko laal la wax fan nga ko teg. Pape l'assemblée nationale. waaw. c'est la représentation nationale. le peuple y a son sa place. waaw c'est tout. mais dafa am fu mu la. non li ngay wax ni non xam nga. mais Pape on n'a pas appelé à l'insurrection mais li ngay Pape yow yaa may tu n'es pas dans l'émotion mais Pape yow fan nga ma déggee ma ne askan bi kaay assemblée nationale. nga def ñaawte non loolu non non da ni. après envahir l'assemblée nationale mais loolu envahir mooy lan. de l'ordre force de l'ordre amuñu fa seen place kan moo njëkk a violé assemblée nationale règlement bi yow ils ont mis dañu indi seen militant dugg lañ ci assemblée à une heure du matin ñu ñëw assemblée gars yi dañuy wuu dañuy yuuxu fu ñu ko teg c'est interdit par le règlement fu ñu ko teg ñun ñu indi suñu ay nit gars yi bloqué leen ci biti mais dama lay laaj le 23 juin ne ko fi yoon yaa ngi fi yoon maa ngi fi yoon ñun dugg ñu ci biir ah. ci biti dañ taxaw. mais ils ont retiré la loi. ok alors Barthélémy ban troisième mandat ngay wax bi nga waxoon wala beneen ngay wax. bi nga waxoon ni président am na droit def ko. boobu ngay wax loolu rek incha allah ma wax. Pape wax ban troisième mandat ngay wax. Barthélémy Pape ba ñu egg ci loolu. non troisième mandat bi nga ni woon mais président de la république am na droit def troisième mandat. nga may wax wala ban nga may wax. Pape yow yaa koy wax. lu ma la wax daal du dañ troisième mandat lañ koy ah, tere Sénégal. xam nga boo aussi. troisième mandat dañ koy tere Sénégal ah, du ma ci denduwaat je ne reviens pas dessus tout ce que Macky est en train de faire actuellement lépp lu muy def contre ses opposants c'est pour balayer et baliser le chemin sur le troisième mandat mais yaa ko njëkk a baliser maa ko balisé i fan yow yaa ko njëkk a baliser eh, troisième mandat bi yaa ko njëkk a baliser Pape waaw je te je ta pensée et tes réflexions moi je reste sur mon principe de troisième mandat pare naa ci wax ci lu ma ci doon wax troisième troisième mandat je l'ai dit ici devant toi sur ce, plateau là. ok alors Bart ban ban combat nga ci nar a a indi lan nga ci nar a def. ban combat ci ci troisième mandat bi lan. non na ñu bàyyi ba ay yi validé ko léegi rek laay ñaan yàlla ma fekke ko te mu ànd ak wér ak wérle ak ak tal ak dal surtout lu ma ci nar def dinaa ko def incha allah. d'accord c'est tout alors Barthélémy euh, presque bientôt yaa ngi bëgg yàgg ville de Dakar Euh, am na ñu jàpp ni li ëpp ci li nga fay def daanaka social la dégg naa sax benn chroniqueur bu ñuy wax Siré Sy suivre naa ko ci euh, Seneweb mu ne lu ëpp ci social yi Barthélemy di def ñàkkul ni dafa laxas dafa la daf ci laxas euh, nu mu ci amee xaalis moom personnellement social yooyu ngay def nga xam ni da ngay wax na sa jënd ay frigidaire wala jënd ay moto wala def yeneen ak faire est-ce que dafa am leneen loo xam ni daf ci nekk wala da ko def parce que social la dafa bokk ci say prérogatives Pape du ma tontu sa question parce que je vais pas commenter des des actes qui me reviennent de droit juróom-ñeenti compétence transférée moo am bu ci njëkk mooy social yow peut yaa ngi ndekki di añ reer sa kër ak sa njaboot man tamit peut-être même chose mais la ce n'est pas la majorité des Dakarois et Dakaroises voilà donc euh, du ma ci sori maintenant nag peut-être su leen neexee loolu lañ ci gis wante nag gisuñu tamit bourse yi ci social la nekk ba tey. bourse yi mais mais Pape social compétence transférée wala compétence transférée damay laajte rek damay laajte wante de mën naa la wax dara te gars yi waxuñu ko saa yi bu may posé benn acte Macky Sall toppandoo parce que Macky Sall ñaata at la def ci euh, ci nguur gi ñaata at da ngeen fi mës a gis Macky Sall woote fii day social fan ba may woote un milliard di ko joxe Macky Sall woote grand théâtre bourse de sécurité familiale. boobu pour am fichier électoral la. non mais non danga ma laaj ma wax la. ma tontu la non mais loolu laa lay wax nii. ma tontu la bourse de sécurité familiale. su quel dama ne xam nga bourse de sécurité familiale dafa am ay critères. waaw. Oh, bul sax sori na nga doxantu rek sa koñ yow nga xool ñaata nit ñoo ñoo fa nekk éligible à cela man su ma koñ lakk jeexu leen kenn woowu leen ah kenn woowu leen kenn enquête leen man dama ne dama woote ne leen lii laay joxe moom mu dem Grand Théâtre day gën xaw ma. 40 milliards yi joxe ay 80 000 francs 80 000 francs ne soo gënee dem ci boutique bi fay sa ay bor mu jeex wante koo yëkkati congélateur jox ko wala nga yëkkati scooter jox ko mu dem cak-cak wala nga yëkkati euh, machine à coudre jox ko mu dem liggéey kooku dina xam lan mooy njëriñu mairie Dakar te man ba ma koy def defuma ko pour am des retombées politiques te waa APR yu nekk mairie Dakar ñu ngi may dégg ñoom dañu indi seen liste ñëpp ci jot parce que man tooguma ci mairie Dakar yor fa suma moomeelu bopp dañ ma ko dénk ma ànd ci ak ay gor ci conseil municipal. je fais selon ma conscience. man dama fonk doomu aadama te ba may campagne dama ko wax moo tax ñu fal ma. j'ai décidé de ramener l'humain au cœur de mes urgences et de mes priorités et de mes politiques c'est tout. Macky Sall il a fait combien de temps mais lépp transparence non xam nga xam nga Pape xam nga Pape xam nga ku nga xam ne ni moom wóor na ko ne ni que ñu ngi koy wut. c'est pas est-ce que ñu ngi koy wut wala wutuñu ko. moom daf ko wóor ne que ñu ngi koy rëbb mairie Mermoz Sacré-Cœur ba tey ñu ngi inspection dinañ inspection bu dugg boîte vocale du ñu fa mës a gis dara parce que je suis sûr et certain d'être surveillé et d'être traqué dama leen ko dul may dama leen ko dul yekkal c'est tout dañu xiif Barthélémy Dias mais wax naa ne ko man du ma shawarma bu ñuy lekk man je m'oppose à vous avec des arguments politiques et yéen vous voulez me liquider physiquement ma bañ a ma bañ a fekkee mais yàlla àndu si yàlla moo si àndul rax ci dolli nag ma diwoo diwlin fu ñu may téye xam nga Pape man def ma wóor ne ni que dañ may on me cherche au nom de quoi je vais tomber dans leur piège pourquoi je ne le ferai pas ils vont auditer réauditer ils ne verront jamais rien du tout parce que je sais qu'ils me cherchent ok alors Barth dafa mu wax boo wax tout à l'heure concernant le groupe bala ñuy jeexal Youssou Ndour moom moom groupe bi ñëpp xam nañu dafa ànd ak Macky Sall sañ na ko. Ah. mais dama bëgg nga jàkkaarloog man nga wax ma groupe bi benn journaliste boo ci may reprocher dara. ki amul alors. loolu c'est pas c'est pas bien li ngay c'est pourquoi j'ai parlé de presse mais c'est def c'est très élégant. non c'est pas élégant si même parce que quel que soit le patron de presse ak fu mu ànd. ak ku munti àndal son groupe de presse doit informer vrai et juste man damay man damay suivre fi jàkkaarloo cette émission jàkkaarloo dama koy suivre damay surtout suivre Bouba Ndour mais il est objectif su nooree dal ci opposition day dal ci kaw opposition su nooree dal ci kaw Macky Sall mu dal ci kaw Macky Sall. mais donc lan ngay reprocher. lu may reprocher. lan la vous n'êtes pas le seul groupe de presse. dama ne on a été ici avec vous avec d'autres groupes de presse doon xeex Ablaye Wade on informait juste et vrai. ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Pourquoi aucun groupe de presse n'a relaté les violations de la loi qui ont conduit à certains comportements lu tax kenn wax aussi. mais te ñu jox Barthélemy mu wax ci. ñu jox keneen mu wax ci ñu wax keneen ak keneen mu wax ci. Pape lan nga bëgg. Pape on s'est réveillé le matin déglu ma le matin. mais ñëpp wax ci. Pape ku nekk ñu jox la la parole nga wax ci nga ni nga ni lan nga bëgg ñu def. mais Pape amut Pape man bokkuma ci politiciens yi taxaw di ne man du ma ñëw def. émission euh, TFM. mais ku ko wax aussi sa affaire la non non non mais est-ce que xam sa raad la. Pape waaw non Pape bu ko waxee noonu. si Pape bu ko waxee noonu. waaw yow nu lu tax mais xam nga lu tax. xam nga Pape man mën naa juum. waaw mais je t'ai donné mon point de vue. mais qui est partagé par une écrasante partie de de la population. Youssou Ndour tout le monde sait qu'il est APR. paul Diaz il est APR. oui amut. waaw moo tax su may dugg ci këram damay noppi parce que fayu ma fa ndox fayu ma courant joxewu damay ba jàpp tey góor gi woote non dégg mais loolu amul fii loolu amul fii mais loolu amul fii pap mais est-ce que xam nga loolu pap moi j'ai connu pap non moo fi amul j'ai connu j'ai connu le groupe Futur Média oui Observateur oui RFM TFM étant un groupe de presse il critiquait tout ce qui devait être critiqué oui biig rek la woon su su Ablaye Wade mais tey Macky Sall la ñuy def lu ko neex gars yi di teg seen bët de temps en am na quoi mais nag xool bul mer quoi bul mer moo am

Pape yow laa invité yow tam xale yi kenn yónni wu fi si non c'est faux. non si kenn yónni wu leen fii. Pape xale yi lu ñuy def ñëpp ko ñaawlu. moo tax saa yu waxee ni groupe de presse de Macky Sall lan nga bëgg def. <coughs> Pape dama kenn yónni wu leen fii Pape wax naa la lu fi bu bundur waxoon bés fi amate ma ne il a raison. son outil de travail dans le protéger. xale yi lu ñuy def teguñu ko ci benn dëgg teguñu ko ci benn yoon c'est un sentiment ah. de frustration ok est-ce que Pape xam nga lu gën a bon ci àdduna mooy ngay gis dara muy raam di ñëw nga ne je n'ai rien vu quand Abdoulaye Wade était président de la République xel xalaatul nit di ñëw fii fii xool dafi parce que ñoom seen yaakaar moo tas en partie en se disant on on mérite mieux que ça lu tax xale yi dem ñu Walfadjri pour sànni fa ay xeer damay laajte peut-être mën naa juum mais damay laajte grand moo tax ñu ngi jaajëfee le groupe Futur Média journaliste yi mais tamit di ñaax tamit à la direction propriétaire soyez un peu plus objectif nag di jégalu nag ci kàddu yi. dama ne di jégalu ci kàddu yi grand di jégalu ci kàddu yi d'accord non non j'ai le droit de demander un peu plus d'objectivité dama ne on a le droit de demander un peu plus d'objectivité on a le droit de demander un peu plus d'objectivité te wax dëgg yàlla dañ ko on le demande. dama bëgg on le demande ci yar ak teggin ci yar ak teggin dama bëgg dama bëgg. Pape non d' accord naa ak dama non dama bëgg il faut accepter les faits. d' les faits sont que aujourd'hui il y a une certaine presse qui est vue autrement que comme elle était vue avant. d' accord Barthélémy dama bëgg nga wax ma ban groupe de presse moo gën a objectif GFM fii ci Sénégal. kon aw ma boobu kon. ban groupe de presse. moo gën a objectif GFM ci Sénégal wax ma ko pas la mais parce que amul. c' est ce que toi tu dis mais loolu moo am. plus objectif. Pape ce que mais ça n'existe pas grand. Pape xam nga je vais te que soit bët leen di gars yi di mën a xoolee. sant leen yàlla vous êtes encore le groupe numéro un n'est-ce pas le journal L'Obs c'est apparemment le journal le plus vendu. la TFM objectivité moo ko waral. non nit ñi kenn moomu leen nit ñi kenn moomu leen. l'observateur n'est pas objectif. je suis désolé arrête s'il te plaît pas objectif il est partisan et clanique il faut arrêter on sait lire écrire et il faut arrêter tout de même respectons-nous. la RFM la TFM Papa Ngagne Assane. non ñëpp Assane Gueye ñëpp non on peut dire. non ñëpp Pape Pape xanaa dëggul loo. waay c'est un sentiment général c'est pa mon sentiment à moi Pape naanaan nga xam nga fu may waxee. je suis venu vous le dire sur ce plateau ici te Youssou Ndour suma mag la suma kilifa la moo tax dama koy dama koy wax fii. mais xam nga ni amul benn groupe de presse bu gën a objectif GFM. je ne dirai pas ça waxuma sax ci Sénégal. non je dirai pas ça non man dama ko xam. non Pape je dirai pas ça Pape je dirai pas ça. Pape man tey dama def émission ak yow. waaw me disent soo ko. rek. non mais Pape mais yow Barthélémy loolu du yow rek. mais Pape gars yi xam nga gars yi dañu mel ne. mais dama ni la loolu. gars yi dañu mel ne Pape euh. donc xoolal gars yi dañu mel ne du may delluwaat ci lu ma wax kàddu yi su xawee ñagas maa ngi leen di jégalu mais il fallait le dire. mais man ça ma me mais nag ça ne ça ne concerne pas que votre groupe. man ça ne me dérange pas les autres groupes je peux pas faire la publicité ici. nous demandons à la presse d'être objectif que la presse relate les informations telles qu'elles existent te bañ a parparloo. alors léegi nag loolu aussi dafa war les acteurs politiques yi mel ni yéen ñu objectif bañ par parlo daf ci bari ñoo xam dañuy parparloo. ci naka noonu mais ci objectivité manque d'objectivité di parparloo. Ah am na ay yoo xam ni man du ma ci dugg mais xam nga ko. Ah, mais ce qu'il reproche par exemple à à à à à GFM peut-être. mais am na ay groupes yoo xam duñu leen ko reprocher pourquoi loolu mooy objectivité. Pape man de. wala da nga bëgg pa lan nga bëgg. je le dis parce que ton groupe aujourd'hui oui. je ne peux pas parler d'un autre groupe. je parle d'ici su ma demee peut-être suba ci benen groupe. peut-être ma waxee foofu leneen. d'accord wante nag quelle que soit ma position. je viendrai participer au débat public. C'est normal, c'est avec plaisir. Parce que je considère que c'est d'abord l'élégance républicaine. c'est à ce titre-là que je qu'on de vous un peu plus d'objectivité. C'est pas méchant. C'est seulement pour mieux faire. mais mais loolu laa mënut dégg. waaw kon je retire mes propos. D'accord, merci beaucoup. Bah. <laughs> merci beaucoup. <laughs> OK. Barth vraiment émission bi macha allah neex na jeex na ma bàyyi la bu fekkee am nga discours booy message booy passé nga passé ko. waaw mais maa ngi lay remercier ci invitation bi. merci beaucoup di la jégalu tamit parce je pense que peut-être j'étais un peu égratigné. waaw waaw am na parce c'est la première fois sax mu dugg ci détail yu mel nii maa ngi ciy jégalu ñëpp. <laughs> <laughs> mais di gërëm ñëpp di sant ñëpp. tout à fait merci beaucoup te di ñaan yàlla yàlla na fi jàmm continuer di sax Sénégal. amiin yaa di ñaan tamit suñu suñu président Macky Sall na bàyyi waxu troisième mandat ndax Sénégal jëm kanam xol yi féex di gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf Barthélémy ñun aussi ñu lay gërëm bu baax ak lu mu metti metti man vraiment xam naa ni sax dina am ñu jàpp ni xëy na dafa am lu am sama diggante ak yow mais xam nga dara amu ci yaakaar naa ñi ngi mujjee gisante mujjee déggante ci dernière émission bi def fii ah c'est ça donc amuñu am na peut-être bu fekkente ni am na am na lu am ci suñu diggante rek peut-être cofeel la nga am ko ci man ma am ko ci yow et puis askan bi seetaan aussi dañuy bëgg émission bu mel nii ak Barthélémy faram fàccee souvent dañu ñu koy laaj donc dafay am solo aussi parfois comme ñun ñooy seetu askan wi euh, ñu leen koy euh, jox kon ñu ngi lay gërëm bu baax kon mbokk yi mu nekkoon Faram Facce ak télévision Futur Média tey ñu doon ci recevoir le député maire de Dakar Barthélémy Dias lañ doon recevoir tey di gërëm bu baax ñi nga xam ñoo nekkoon ci régie bi Pierre Da Silva ñi ngi koy gërëm bu baax. Ah, di gërëm itam Karine Joanel mu nga xam ni itam moo nekk ci sa communication ñu ngi koy jaajëfal di leen jox rendez-vous incha allah alarba wala di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. c'est c'est trop mbir mi